asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan xaas TV. jaww moom jamono dama laa may jàmm nag. Hmm. moom gars yi dañu ne bi may ko jàmm léegi laa di isaani ma li ngay wax sëñ bi soo moytu nag xoolal man si si yow laa fay. Hmm. xam nga mu mu mu lay menacé mu muy menacé. mu a taay bu jàmm laa la dëgg maa lakkal moo tax <laughs> moo tax gars yi maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay jox waaw ba yaa ngi ci jàmm alhamdulilah maa ngi si jàmm bu wér a wér a wér a wér coono yi waaw di ñaanal sama président Anta Babacar Ngom jël réew <laughs> xam nga Diop polyvalent la. ah tout le de kii rek. waaye ñaan man man ab jullit fu mu ñaanalee moroomu jullitam. waaw waaw waaw amiin la yow. waaw amiin laa gëm. Ah. kon yàlla na yàlla def ci réew bi jàmm. <laughs> président Macky eh, comme dafa ne ci yoonu dem yàlla defal ko jàmm. ah mu ngi inauguré bi macha allah. loolu ah. fierté la. Ah. yàlla ko ci yàlla yokkal ndam. moom mooy BRT bi. waaw koy inauguré bi. waaw ba léegi ñu ngi de. am na bu mbëkk gis nga yii cat la rek. ah rek cat rek na yàlla doon ñu sutura Ndiaw. Ah. Euh, di wax ni. Amnévas ah. dama laa junjee. ci bu xale juddu. Ah. responsabilité yaay ji ak papa ji. xam nga wax naa la Serigne Abdoul Ahad Mbacké. ñu ko tuddee doom doom ji faatu mu ñëw ni yaay ji ah doom ji dañoo kii rek mun ko ndax diggante bi mu juddoo fan ak fan nga takk. mun ko jot ñu koon takkal mun ko ah kon de faatu na waaye nag sababam na. parce que chaque ma ne la jaw boo demoon ba ci digg tali nga taxaw oto ñëw mbëkk la. boo faatoo mara day tali. jaw kan moo rey boppam. yàlla sa bopp dañ na daga xaru boobu ana yàlla. yàlla sa kaw toog. parce que yaa sa bopp sa biir mooy nit ki ni yàcc nag bàyyi boppam. Mhm. tey liir. Mhm. dafa am lu ko yàlla defal. wax naa la ni jour bi liir bi juddoo jaw ñu mhm. bi. juddu na. dafa sabab la. ñu ni jooyi dafay sàmm boppam aar boppam att boppam. jooyi liir justement. moo tax ñu naan liir dafay faral di jooy guddi parce que li muy gis mooy bari waaye léegi nag kon bu liir di gis lu bari jaw ça veut ci moment boobu mu nekk di gis lu bari moom liir mhm. kon lan moo nekk ci wetam ba liir ba mën a gis lu bari parce que liir moment boobu bëri jugagul loolu la mooy li la xaas ni nit ki bu juddoo tak am na vidéo bu mu toll <laughs> rek vidéo boobu. waaw bis ba ñuy tudd même vidéo boobu mooy existé waat ñëw. moo tax ñun tuddee nañu diw doomu diw moo tax booy seetal jaw nga mën a dugal turu pour mën a gis jaw euh. parce que boo dugal turu yaayam mënoo gis jaw euh. parce que boo nee Souleymane Jaw euh. par exemple Souleymane Jaw yu bari na. <laughs> waaye doomu diw parce que boo nee doomu diw rek. jour bañ koy tudd vidéo ba mu tombeel ak jour ba mu juddoo même vidéo moo tax nit ki mën laa seetal par force foog ma laaj la sa turu yaay. d'accord parce que ci diggante boobu foofu la rawaan di exister. Mhm. parce que rawaan diggante bi nga nee bërët du taxaw rek takkandeer bi taxaw rek rawaan bi exister na taxaw na. mun sa boor déjà. Mhm. léegi nag moo waral. Mhm. rawaan benn côté dafay dem ba ëpp doole nit ki ci côté boobu. moo tax ñu ne la des fois nit ak nit tàggaloo na ko ne mu compliqué na. ñu ne la déedéet foog nga boolewaat leen bi xëccaat boole leen. pour rawaani ànd ñaari nit yi mën a ànd mais bu rawaani àndul nga bëgg a boole ñaari nit du sotti parce que rawaan day tollu niveau boo xam ne muy ëpp doole nit ki. ah moo tax ci muy jaww Ablaye Diop xaas keneen ak keneen ku ci nekk am nga sa jour boo xam ne sa rawaan dafay absenté parce que wax naa la ni. rawaan prise la. Hmm. dafay dem ba dafay déchargé. moo tax mag ñi kilifa yeeg ku ci nekk am nga sa jour boo xam ne doo ibbi jour boobu da naan jour hmm. que Hmm. est-ce que yaa ngi dégg. maa ngi dégg kon nit ki. Hmm. position bi mu féete. Hmm. déjà nekk na ndaw kon am na sabab bu ko yàlla suyee. ndax kon xale ba jaw mu ngi màgg. mu ngi màgg comme ci xale la ñu yemoon. waaw léegi ci diggante eh, eh, xale bi màgg des fois nit ñëw ni la ah sa doom ji macha allah. Eh. wala nangu naa wala sa doom ji de moom nag wala doomu diw jël. kon muccagul cat ba. ma muccagul ko sànq yaa ngi dégg diw nangam ah diw macha allah wala diw kat màngam. kon jaw xale ba muccagul. dëgg la léegi nag xale bu muccul mu ngi dox ci yoon jaw mhm. kuy dox ci yoon dañuy takk say say bët. doo gis de. jaw boo fa xasaloo fa yàgg. àgg ngay daanu. moo daanoo nooy def. ah jugaat jugaat wala nga gaañu ca. wala nga gaañu ca waaw mooy ti nga xam ni. Mhm. ñu ngi koy catu muy dox ak moom jàppale mu ngi dem waaye àggagul. Hmm, d'accord te làmmiñ dafa am dafa am bu ci doy waar dafa am bu ànd ak tooke. Hmm. mooy bi nga xam ni bu la dalee du yem sax ci yàq la waaye da lay teg feebar. mooy borom làmmiñ bu ñuul. ah waaw mooy ñooñu noonu. bët na bët boo xam ne it safaan la yàlla na ci yàlla musal parce que ci nga war koo mën a gëm. ci bët lu war a def. jaw boobu noonu ñu ngi mel. jaw ci nga war koo gëm lu tax bët war a def loolu. Mhm. lan moo waral mu daan man a xool doomam mu suur te pourtant nampalu ko kon war ngaa xam ne même bët boobu war na mën a xool jaw indi musiba. Euh, ok maa day xool doom ji bu suur te du ko nampal. parce que am na per bu muy wëlbati yërmaande bi muy def ci doom ji tax na mbir bi fees dell léegi nag nit ki nga sol yére bu rafet mu xool laak musiba mm. musiba boobu da topp ndax boo solee yére bu rafet nit bu ne macha allah la ci xolam xamuloo ko la mu yëg xamuloo ko mën nga xool mu ne nanga cat boobu du la bàyyi moo tax ñu bari cat mu ngi leen di rey ci kaw suuf dëgg la dëgg la jow ñu bari tey ñu ngi saxaar te duñu tàkk ila yawmi diin dëgg la parce que ci même responsabilité mooy nit kaa ngi màgg. Mhm. léegi nag rab taxaw di def position ci beneen côté nag mooy. Mhm. Mhm. xaaral léegi man c'est simple. comme nit dafa war a am avenir. nit dafa war a def lii. man rab xaaral ma taxaw nag. léegi lan laay def. dama koy bonal. mu bon ma koy bonalee dama koy xabtal muy defi lu bon. dama koy xabtal muy xalaat lu ñaw dama koy xabtal julli dootu ko mën. dama koy xabtal euh, bu waxtu jotee ma yéen ko wala ma fàtteloo ko wala ma def ci boppam leneen ba maara ditaay lan lay def damay dugg ci boppam di ko xalaat loo xalaat yu ñaaw ba soriloo ko yàlla allahu akbar est que yaa may dégg bu baax yematul foog mu ni déedéet sax comme man nangam xaaral ma xabtal ko ma dem ci baar ba di naan sàngara ku jigéen ki mu ne xaaral ma xabtal ko muy tux wala ma xaaral ma xabtal ko ci góor ñi Mmh. dëgg la mmh. cata ngi def mmh. raba ngi def léegi ba tey ci lépp lépp da koy delloo waajur yi parce que li tax position ba xale ba juddoo la mu waroon a def pour muccal xale bi ba nga xam ne rab du ko jàpp c'est simple mooy lan parce que sëru rabal yi mag ñi daan bootee sax dañ ko daan denc euh, karaw boo ko xar karaw liir boo ko masaana kii ba pare da nga ko daan jël teg waaye léegi da ngay jikko dem xale bu ñu yóbbu déedéet ñu yóbbu ko tondees mu ne wootu yaa ngi yooyu musiba dafa nekk ci danger yoo xam ne jaw nit ki yaa ngi koy utal yaa ngi koy xëccal musiba te yëguloo ko moo tax loo ci xam moom de maara di tal jekk na jekk wala daanu na wala loxo ba damm na wala nang parce que ba ci damm damm yu bëri cat bu bëri moo koy def cat xam cat bu olof def ni la bu reyul semmal semmal mooy di nga daanu accidenté mm-hmm. tànk loxo ba damm wala tànk ba damm wala nga tëdd feebar bu ku ñëw ni massa massa massa yooyu mooy tegg yenn ci cat yi te cat ku ci mucc amul jëkk kaw suuf kon rab bu xëcc fii cat di xëcc fi nit kooku jàppale du génn buntu kër gi d'accord jaw moo tax ma leen toujours ki tàmbali mhm. bu mu la sonal waaye ki àggale na la sonal d'accord dégg naa parce kon ndaw buy tàmbali mhm. responsabilité bi li ci ëpp ci kanam la mhm. kon na def kémte laayam kàttan moom ba lii nga xam ne yoonam lu mu metti metti na ko rat xam nga tey kiy dox ci xaaxam ak kiy dox ci yoon ba amul xaaxam mënuñoo ànd bokkul te soluñu daan bokkul kiy dox ci xaaxam jàppale bis bu mu ngi càppi-càppi waaw kii sol daal nag muy waaxu di dem mooy kii am kaaraange kii amul kaaraange. dëgg la parce que kii par force dina am lu ko jam loo xam par force day toog. dëgg la kii par force daal yi mu sol. Mhm. tax na lu mu jógee loolu day féetu suuf waaye day dem mooy ko am ko wax ayca bisimilah yàgg euh, jógee foofu sëñ bi ñu ngi jëm nag Sénégal Cameroun. <laughs> kañ la. suba la. suba gis nga suba la. suba la Sénégal Cameroun suba la leer. Euh, ay di 17 heures. waaw. te ku xam Cameroun euh, nekk na équipe boo xam ne daf ñuy yàgg a sonal. Ah, waaw bii yàlla baax Ah, yàlla baax na bii bu rafetul jot lay rafet jot. ah xam nga li ma woon marché bi tey wala ma wala tuuti nag. non damaa bëgg wala def def ko guddi. non damaa damaa bëgg rek nga dugal sa loxo rek ba xam naa moom xam naa moom. ci kàttanu yàlla xam naa moom aussi. ci kàttanu ci xam naa yow yow da da si maanaam si bare bare bare. da ngay ñaan rek wallaay gi jël naa la ci alxuraan xaw ma woon leen suba la. xam naa ne que yow yow. xaw ma woon sax jour bi la man maa man maa lay bëgg naa football. waaw mais ci làmb laa gën a accolé man dama bëgg <laughs> man ku nekk sa bëgg-bëgg. Uh-huh. man bëgg làmb bi. ah d' ñu bàyyi ba guddi daal ma laa les loolu. amul problème ndax am hmm. si mel ni seetaan nga actualité problème mu nan nabudage bi. Hmm. Euh, lim ne am na sëriñu daar yoo xam ne mooy fi jotoon xew rek sëriñu daar yi kii xale yi yooyu mu daal di am lu mu si waxee. Hmm. kuréelu ñoom Matar Sarr ah, ah, dafa juum. waaw benn côté jaw xam nga lu tax jigéen la nag nañ buñ ko buñ ko topp mm-hmm. jigéen moom mm-hmm. dafay juum nga gàggal moom sax leeral na nee na waxul ñëpp ñi dafa bon waaw foofu la waroon a ñëkki ah, te deuxièmement xam nga daara dafa yaatu mm, yow bu ñu nee daara sëriñu daara mm-hmm. yonent yàlla Muhammad sëriñu daara loolu te da doon jàngale ku mel ne sunu mag ñu baax ñi ngi gis ñëpp ay sëriñ daara la sëriñ Tuubaa fu mu mës toog day tomb di jàngale kon sëriñu daara la gis nga nag mbir bu xewee. Mm. jaw mm. ku ne xam na ni dañ naan soow. Mm. la cay ñuul bokku ca. dañ koy sippi sànni. waaye bu ñu soow mi yëpp ñuul. dëgg la dëgg que dégg nga wax. dëgg foofu dafa juum. xëy na moom it xol moo ko topp. xol bi ko topp mooy xëy na ndeysaan yërmaande bi mu am. yërmaande bi mu am ndeysaan mais des fois nga gis kuy mbubbulu dara te doonu jotee da ngay dem imaam lay juute te imaam bi lay jiite sëriñu daara la. dëgg la dëgg la. tey ba ñu teg la ni si mhm. te imaam bi lay jiite sëriñ daara la moom mucc ci man mucc ma ci keneen mucc ci dëgg kon am na ci wax yoo xam ni ëpp na ndax bañ nag ba xale bu juddoo li ñu ko demal wooyu imaam mu ñëw tudd ko tudd ko wala xaaral sëriñ bi ñëw tudd ko sëriñ boobu jaar ca daaraa tax mu man loolu bu ko defoon loolu du ko def mm. kon am na ci loo xam ne njuumte la mm-hmm. Mm-hmm. njuumte nag bu amee rek njuumte la njuumte mm. kon euh, waaye moom jigéen la jigéen mm. matul mm-hmm. ñoom it dañ koy faral di wax xam nga nabu euh, gis nga yi fi jaar yëpp dara bu amee nag yoon la sax nga xew ko wax ni pour nangam ak nangam parce que am na loo xam boo ci wax muy fës mën na yàq lu bari parce que li fi yàq mooy dina tax nit bëggoon a jël doomam yóbbu mu foog di tàngam bi moo fa xew wala nàngam bi mhm. te loolu nag bokk na ci pexe seytaane ko day ñaan yàlla mu musal ñu seytaane mhm. te Sénégal fii jaw jàmm fi gën te lu dul jàmm nag jaww jàmm ko gën wasalaamaaleykum wa rahmatulah